mbooloo bi yëpp euh, di teg nuyoo bi sëñ Mbay Silla mi ñu fekk si fii ñun RIEP moo fi ñëwoon c'est une ONG un GIE un groupe intérêt économique pour la lutte contre la pauvreté ñoo fi ñëwoon di def benn formation agroalimentaire transformation des fruits et céréales la formatrice c'est madame Khady Nia madame Khady moom moo fi ñëwoon semaine bi di 16 au 21 pour former des braves dames kenyans euh, dirigés par Mbaye Silla et financés par Moussé mata Diop. En passage, nous remercions Moussé mata Diop pour son soutien. Oui. Moi, c'est Mme Koumba Goumbole. Je suis la trésorière générale de RIEP. Il y a Mme Khadignan, la représentation de la femme. il y a monsieur Mal euh, qui de la santé léegi olof bi mooy réseau international pour l'élimination de la pauvreté mooy benn groupe boo xam ne dañ fee taxaw pour pour xeex ndool mi ñu di ñu dibale aussi jigéen ñi en formation boo xam ne pour jàngal jigéen ñi nan la ñuy defee formation fruits et légumes pour ñoom ñu mën a liggéey bokk ci développement bi am na nay mbirum agriculture képp ku bëgg a loolu si baykat réeb mi fi képp ku bëgg a def si mbirum jur di élever jur réeb mi fi képp ko xam na it nekk nga fi pour bëgg sa projet dinañ la gunge ba mu am financement maa ngi remercier ñëpp nag au nom de REEP au nom président de REEP Abdou Mbaye Sylla et au nom de tous les membres de REEP je vous remercie. man la Ajaratu Khady Niang nekk chargée des femmes de RIEP di association bi ndey Kumba doon présenté léegi li tax nag ma andi RIEP fii ci Kër Niang dama bokk ci association bi yor chargée des lépp loo xam ne jigéen moo ko war a saytu man lañ ko dénk dénk ndey Kumba mais la trésorière de RIEP Ndeye Khady Sané mooy la mooy les formatrice après dina ñëw leeral li mu doon liggéey ñuy nuyu suñu président Abdou Mbar Sylla di ko ziyaare bu baax di nuyu mu Moussa Mar docteur Mar ñu ngi lay nuyu bu baax membre de RIEP tey nag boo gisee ma andi leen dama dañu am suñu partenaire bu baax muy honorable Matar Diop soxla woon lii ci ay jigéenam en tant man ma nekk euh, chargée des femmes de RIEP di liggéey ak moom ma fexe ba indi association bi mu former ko jigéeni Kër Ñang di cinquante femmes yoo xamante ne formé nañ leen ci liggéey bii ci turu Mbay Silla Njaay mi nga xamante ne xaritam la àndandoom la voleureem la vraiment def liggéey bu rafet sonn ci lool nag ñu ngi lay félicité bu baax mbay di wax ne waa Kër Ñang waa Kër Ñang am ngeen lu bëree bëri loo xamante ne bu ngeen ko jàppee yéen dutu leen xolle gerte du dutu leen def lenn loo xam ne liggéey bu débordé la liggéey bu noobu la leen mbay andil na ngeen fonk seen formation bi ngeen suivre ko incha allah bépp jigéen bu nekk Touba dina leen roy ndaxte li yombul ci Touba maa ngi nuyu nag sama kilifa yi fi toog yépp sëñ Abo Ñang maa ngi lay nuyu ak mboolem délégation bi nga àndal di nuyu sëriñ Xaadim Diop di ko teg nuyoo bi di ko jóbbante ci honorable Matar jot di ko wax ne ko merci moom tàccloo wu ñu yuuxuloo wu ñu mais daf ñu liggéeyloo kon jot sant nañ ko gërëm nañ ko bu baax a baax a baax di wax ne nag mataal dafay soog a commencé mais vive victoire bi am na jigéeni Touba yëpp danañ am formation danañ am financement wasalaamaaleykum. maa ngi tudd Ndeye Khadijatou Sané nekk formatrice RIAP maa ñëw Kër Niang ànd ak jigéenu Kër Niang yi for leen formation bi fruits et légumes la. damay jël quelques produits rek présenté leen ko lii banaana la banaana sachet la banaana bi buñ ko woowalee ni mun nañ koo lekk que mun nañ koo def sunguf def ko caagri lii jinjeer la waaye pass si jinjeer lañ koy woowee yaakaar naa ne léegi jënd pass bitik wàcc na leen parce que xamoo leen mm. composant yi lii ca 100 pour cent naturel jinjeer limon sucre am na it ay sirop am na sirop di tax am na ay marmalade marmalaat mun nañ koo ne chocolat marmalade calossol am na it ay conserve muy conserve légume conserve fruit am nañ tamit ay confiture confiture papaye produit yaa ngi nii mënuñoo expliquer yëpp ndax daa xaw a guddi waaye quelques produit yaa ngi nii merci